الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن الحمد لله الذي سمى نفسه بالسلام وأمر بالنشر السلام بين الأنام وأشهد أن لا إله إلا الله السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول السلام الرحمة المهداة للعالمين وعلى آله وصحبه الذين سلكوا سبل السلام أهل علينا بالمنى رجب الفرض وحق لدى إهلاله الشكر والحمد به ولد العرفان والعلم والتقى فعم لدى ميلاد العز والمج ففيه أبو إسحاق بان ضياؤه وأشرقت الظلمات فاتضح الرشد وأصلي وأسلم على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ila yawmi din amma baad gannaaw bu ñu sant yàlla mi nga xam ne moo jël ci turam yi tuddee ko jàmm assalaamu ci tur yonent la bokk déggoo léegoo léegi ñu naan la liggéeyal salaamu yaa salaamu moo indi jàmm yàlla nee na am naa juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeent vingt dix ci li nit ñi gën a xam nee na bu ngeen ma ci oo moo uyu leen ci nee bu nekk nag am na lu muy def soo bëggee dépasse bi ngay liggéey soo bëggee nomination bi ngay liggéey boo bëggee jàmm bi ngay liggéey yàlla mu ne am na ci boo xam ne moo indi la paix mooy assalaamu السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر له دار السلام ñii seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg nga xam ne suñ ko jaamul am problème suñ ko jaamu mu fay ñu budul yàlla am na nag ñu taxaw bëgg ñu jaamu leen waaye seen ñàkk jaamu du lor te boo leen jaamoo mënuñ laa jëriñ parce que am na ñoo xam ne ah, jaamu nañ laata jaamu nañ uzza jaamu nañ lu nekk waaye ñu doon jaamu jëriñu leen ñuy julli di sëlmal ci sang-sang yi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moo ñëw firi yàlla bi mu waxee ne am naa sama tuur jàmm la yonent bi sallallahu alayhi moo ñëw firi lan mooy jàmm moo ne la jàmm mooy ki nga xam ne jullit ñi mucc nañ ci sa làmmiñ waxoo lu leen di lor waaye mucc nañ ci sa jëf jëfoo jëf boo xam ne dafay lor nit ñi al man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yati sallallahu alayhi wa sallam moom moo firi moo firi turi yàlla boobu di wax salaam yàlla jox ko al islaam islaam lan islaam bi ñu nekk nii mooy lan ak lan moo tax ñëw islaam ndax islaam dafa ñëw pour julli ak oor ak aj wala am na lu gën a for loolu ñu ne la ankañ am na lu gën a for loolu mooy lan yàlla mu ne bala ngeen maa jaamu bëgg naa ngeen nekk ci jàmm ba pare parce que bu ngeen nekk ci jaamu du ngeen ma mën a jaamu ah avant ñu lay firil diine bi fiq bi jullil ooral ajal joxel sa asaka jokkal mbokk dafa am beneen affaire boo xam ne moo gën a importance mooy lan mooy yàlla li mu wax yonent bi sallallahu alayhi ne ko bakkan bi benn doomu adama moo gën a foor ay milliards yàlla ne benn doomu aadama moo ma gënal adduna yépp moo tax alquran ne wa man axyaaha fa ka annama axya nnaasa jamian képp koo xam ne dundal nga kenn nit dafa mel ni dundal nga adduna bi yépp wa man axyaaha fa ka annama axya nnaasa jamian yàlla nee na nga dundal benn nit rek mi ngi mel ni dundal nga adduna bi yépp ñu nekk ci diine boo xam ne bàyyiwu la sa diine bàyyiwu la sa diine wax na ak yow sa diine jëf na ak yow sa diine fàttali na la sa diine teg na la ci yoon mu ne la amul dara looy taxawal ci wàllu àdduna ci wàllu diine mu am mut lu may dem ko tabax ci jàmm ah li nga bëgg pour mu jàll pour nga am ci résultat danga koy tabaxal ci jàmm société bi mu jàll pour mu jàll am ay résultat mel ni ko bëggee ah da nga koy taxawal ci jàmbur waaye boo ko taxawalee ci këf xaalis jàmbur kooku ñëw di la fayeeku doo nekk ci jàmbur parce que plainte yi moo tax ah jigéen boo ko jëlee ci lu dul jàmbur doo am jàmbur sëy bi du neex parce que jëloo ko ci jàmbur ah xaalis bi soo ko amee ci lu dul jàmbur doo nelaw parce que waxtu ne yaa ngi xaar plainte yaa ngi xaar fay ma fay ma fay parce que da ngaa dajale ay xaalis yoo xam ne amoo ko ci jàmbur ah amoo ko amoo ko ci jàmbur. moo tax islam ne la est-ce que doo doo topp yoon yu ma la xalal pour nga stable pour nga nekk conscience tranquille ah soo faloo kañ ci falu boo xam ne amul jàmm mu ne réew dañ koy fondement ci jàmm li nga bëgg dañ koy fondement ci jàmm mu ne la sa yëf soo koy dénk dénk ko am jàmm parce que boo ko déggee ko amul jàmm mën na koo yàq ah parce que ku amul jàmm maîtrise wul boppam jàmm mooy leen sëriñ bi yaa ngi wax jàmm mu yàlla ne la jàmm ci nit ki lay nekk déggoo ñu naan assurance ak assurance sa aafiya mayal sa bopp jàmm déggoo ñu naan yow yaay may sa bopp jàmm nooy may sa bopp jàmm parce que sa làmmiñ kenn mu cee wax ku dul yow li nga wax yaa ko wax léegi wax boobu nag moo lay indil jàmm wala moo lay ñàkk indil jàmm li nga jëf bi nga koy jëf ah bi ngay jël xaalis jàmbur bokkoo ko kenn islaam ne la ni ngay amee jàmm mooy lan mooy nga jàmmal sa làmmiñ ci sa wax nga jàmmal sa bopp ci sa jëf li ngay wax moo lay may jàmm li ngay jëf moo lay may jàmm yàlla ne la contrôler sa bopp am ngay nangu ñu lay contrôler yow ah parce que yàlla moo yonent di sallallahu alayhi wasallam ne ko maa ngi la envoyé ci ay nit ñoo xam ne dañoo sonn dañoo am ay problème ma ñëw bëgg nga dindi problème bul fa dem naa leen julli leen wax waxaguma la nit ñi julli boo demee màkk bul fa wax julli bul fa wax oor bul fa wax aj ne nit ngi nekk ci jàmm ba pare soo demee ba Medina nag ba mbiri stable nga soo di julli mais tant que gars yi ci problème que ñu ngi leen di jàpp di leen di leen dóor ah di leen di jaay di leen def ay jaam di seeg seen jigéen ñi nu mu leen neexee mais nit boo leen waxee julli duñ la déglu demal nga yóbbu jàmm dama laa wax ne la yónnent bi maa lay yónni waaye xarisun maa anitum xarisun coono yi na dañ coono yi nañ coono yi na dañ bu bu coono yi dañee nag soo leen waxee ñu ñu julli ñu danañ ko man waaye tant que nit ñaa ngi am coono nit ngi ci fitna mënoo def dara moo tax nag islam di la wax nela la ah, maa ngi wax ak ñoo xam ne xéewal gi ma gën a am bi gën a rëy aljanna mooy mooy mooy jàmm ah yow ma yalqawnahu salaamun yow ma yalqawnahu salaamun yàlla ne la ba léegi jàmm bi danga ko am ci mbooloo ah sëriñ mu ne mbooloo dafay may jàmm waaw booloo dafay may jàmm parce que islam moo la ko wax islam moo ne la yadullahi ma aljamaa nee na yàlla nee na sama kattan sama doole def naa ko fekk yéen a ngi nekk benn alquran ne la waatasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu ah na ngeen nekk benn waaye bu leen féewaloo na ngeen nekk benn lan na ngeen nekk benn ci li nga xam ne dëgg la ah, na ngeen ànd ci dëgg parce que noonu la dëgg ak dëgg ci jàmm rek la ñuy nekk waaye dëgg ak lu nekku dëgg mënuñoo nekk ci jàmm ah dëgg ak dëgg ci jàmm la ñuy ne mais boo bëggee indi lu nekku dëgg bëgg koo teg ci kaw nit ñu kañ doo nekk ci jàmm ñun kañ bu ñu nekkee jàmm suñ kër nga ñëw bëgg ñoo dugalal ay erreur duñ nangu dañuy résister loolu soo insister problème am moo tax mu ne la bu ngeen nekkee benn ci ci dëgg sans complexe ñu ne la waaw sëriñ bi lan mooy maye Euh, fitna nga ne complexe dëgg baa ngi nii sax mais mënuma koo nangu parce que fi mu jógee la gars yi seedal nañu sax kii ku baax la mais mënuma koo nangu parce que gënul ma ah parce que gënul ma sa président adduna yëpp naw nañ ko personnalité la alam bi seede nañ ko nga ne man gëwuma ko parce que bëgguma ko ah monsieur le maire baa ngi nii gars yi seedal nañ ko lu baax nga ne man gawuma ko parce que dama doon concurrence ak moom mu gañe ma sëriñ bi baax na jaamu yàlla la bu ñaanee mu ndam nga ne noonoo gawuma ko parce que kurus bi mu yore laa yore damaa bëgg bu ñaanee ma ñaan ma ma njëkkoon nangule islaam ne la dindil sa bopp ci catégorie boobu yow sa xol bu mu yàqu nee na xol bi su yàqoo rek dara de sutu fa parce que xol bu yàqu mooy indi fitna moo tax yonent bi sallallahu ne la am na benn matière bu ne ci doomu aadama su rafetee lépp rafet na su yàqu lépp yàqu na mooy lan alaa wa yal moo tax boroom xam-xam bi di wax ne may bi ko yàlla may bi gën a mag mu ne zaala takaduri wa zaaka azamu mu ne sama xol nax-naxi xol bi dañ na tant yaa ngi xool xéewal bi ci nit ñi ngay bëgg mu dañ ngay mer mu ne ba léegi yow amagoo jàmm parce que jàmmaloo sa bopp li ngay mer lan la ah moo tax islaam ne la ah lawum daaru salaam lawum lawuñ daaru ba léegi yàlla di la fàttali ne la xam dafa indi jàmm nga ne ko ah, xam-xam nu muy indee jàmm parce mu ne la ki xam day xam conséquence fitna lan la indi parce que ki xamul moom xamut parce que ki xam jàng xam ne lii lii moo ci topp su ma defee lii lii lay jur kooku dana dana maîtriser bopp mais jaayee xam woykat bi wax na leen na wal wal jaahiluuna li ahlil ilmi aadaau mu ne ñi xamut dañu nekk ay ennemis ñeel ñi xam parce que dañuy yaakaar ne ñoom li ñuy gis moo baax fekk waa ji moom li baax ci xel mi la nekk nekku ni li ngay gis yëpp moo baax mu ne la ba léegi xam-xam nit ñi buñ jàngee am xam-xam day tax ñu stable day tax ñu dal mais jaahil mooy koo xam ne xamut inoor sax la xamul li muy def man na laa bëgg dimbale fekk mi ngi lay lor moo tax islam di la jàngal di la di la di la waxal ne la soo gisee ndaw yi di am xam-xam amal yaakaar ne avenir yi réew moomu avenir yi dëkk boobu mi ngi ci kanam waaye boo gisee njàng mi baaxut rek mu ne bul am yaakaar ci avenir yi réew moomu islam mooy wax ak yow nooy nattee avenir yi réew mu ne ma gis ne xam-xam bi mi ngi ñëw xale yi ñi ngi xam li ñu xamutoon xale yi ñu ngi créé ay oto xale yi ñu ngi créé ay avion xale yi ñu ngi dawal ay avion avion ngi nii jógee na Sénégal dem Paris kan moo ko doon dawal ñu ne sénégalais ah ku yaayam sant Diop papaam sant Diop nanga moo ko dawal ñu ne ah, réew mi am na ci moom yaakaar mais pourquoi toujours yow ngay nangoon dellu gannaaw ci xam-xam pourquoi ngay songu xam-xam bi xam bi nga xam ne mooy doole kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla ne ko jàmmal naa la ci naka ci ma xamal la loo xam ne waa allamaka maa lam takun lan ndax nga mën a indi jàmm parce que boo xamul doo mën a indi jàmm soo xamul doo man a indi jàmm borom xam-xam bi ne la nga am xarit nga am xarit boo xam ne jàngut nga am noon bu jàng moo ko gën parce que xarit bi jàngut mën na laa jege yaakaar ne mu ngi lay defaral fekk mu ngi yàqu mais noonu bu jàng su la neree def dara day calculer est-ce que su ma defee lii est-ce que su ma waxee lii ah. li ma bëgg wax ci diw est-ce que est-ce que yoon may na ma ma dugg ci xàq nit est-ce que daan yi may xaar ci lii mi ngi calculer moo tax nit ngi il faut ñu jàngal leen mais bu ñu songee xam bi rek problème am moo tax islam di la wax ah, jàmm ji fan lay jógee mu ne la jàmm ji ba léegi dina jóge ci xam-xam nga jàngal nit ñi yar leen mu ne la boo jàngalee sa doom yar ko toroxoon nga sa noon boo jàngee sa doom yar ko yar ko mu ne sauvé nga ko waaye sauvé nga sa bopp parce que ku jàngul ëllëg mën naa ñëw sax saaga papam parce que xamut li islam wax ne wala taqul lahumaa uffin ah am na ku wax ne rëccu naa sama doom lu ma ko jàngalewut alquran parce que diplôme yi bëri na nangam ak nangam waaye su ma waxee rek mu sànni ma loxo ma ne ko parce que jàngaloo ko islam li mu la wax ne wala taqul lahumaa uffin donc islam ci boppam moo la wax ne la xam avant tout. kon nag booy songu xam-xam boobu yaa ngi def erreur te sa bu nekkul sa sax ci nite rek ci cadre nite ku nite rek nit ñi dañ daan ñëw di maye xam-xam maanaam bëgg-bëgg la am na ñoo xam ne dañoo wax ne man damaa bëgg rek pour jàngale même suñ ma fay damaa bëgg pour joxe xam-xam ndax gëm naa li yàlla wax ne ku joxe xam-xam ma fayal la soma bopp gëm naa li yàlla wax ne. xam-xam bii may dugal ci nit ki tuyaaba la boo xam ne sama borom nee na duma ko sànq léegi nag ah, jaar-jaar yooyu nga xam ne nit ñu kawe ñu màgg ñi daanañ wër di ut ñoo xam ne dañ leen di jàngal pour def ci ñoom xam-xam loolu yëpp tey nga bëgg koo fàtte ngir lan ah, ngir ay dërëm yoo xam ne risque bi yadillah wërsëg wi ci loxo yàlla la nekk moo tax ñu ne la métier yi. def ci am koo xam ne daf ciy dugg xaalis kese la bëgg am na koo xam dafay wax ne lii laa bëgg pourtant waxtu wi ngay am xam-xam di ci gàllankoor ni ñi am na koo xam ne moom bakkanam la joxe am na am na am na koo xam ne bakkanam la joxe nu mu joxee bakkanam ah da nga gis koo xam dafay dem di xeex pour nga ne ci jàmm yow ah soldat boo xam ne day xeex nelawut pour nga nekk ci jàmm yéen a ngi dégg Casamance bu yàggul rek. ray nañ juróom jàpp juróom-ñaar lu tax ñoom kaasuñ pourtant ñoom bu ñu xëyoon ne ñun mënatuñu rek problème am de est que yow miy jàngale doo xool ci ñooñu yow sa xam-xam rek waaye kële bakkanam la joxe waxtu yi ngay feet di yuuxu di zambale am na koo xam ne moom mi ngi ci naqar parce que jabaram mi ngi ci naqar ndax ray nañ jëkkëram ndax jàpp nañ jëkkëram ah moo tax alquran mu ne la wa wa tilkal ayyaamu nu daawiluha bayna naas ah wa tilkal ayyaamu nu daawiluha bayna naas ah loo joxe rek am na ku joxe lu gën a foor li nga joxe yow moo tax yaa allahu yaa rabbi ñu ngi lay ñaan ñi nga xam ne dañoo joxe seen bakkan ngir ñun yaa allahu yaa rabbi ñu ngi lay ñaan sa ndimbal yàlla na ko teg ci ñoom yaa allahu yaa rabbi yàlla nga leen dolli sécurité yàlla nga leen dolli kaaraange gi nga xam ne yaa ko mayoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko waa màkk yëpp dàqee ne ne ko gars yi duñ la gis sécurité boobu ci xafiisu ci salaamu ci mbooleem tur yoo xam ne sécurité la yàllaaw yaa rabbi yàlla nga leen dolli sécurité ba nga xam ne ah, kenn du leen mën a jot kon islaam yi ngi noonu di la jàngal ne la bu la kenn jaral nga joxe sa bopp ah bu la kenn jaral nga joxe sa bopp islaam mooy nite kese islaam mooy nga xam li ngay wax mooy nga xam li ngay def mooy nga xam sa bopp yow xam ne yow yaa gën a foor lu dul yow lu dul doomu aadama rek doomu aadama moo ko gën a foor milliard la réew la lu mu lu nekk rek islam moo wax ak yow ne la man benn doomu aadama moom a gën a lépp moom ma gën a adduna bi lépp amut benn diine wala kenn ku am xam-xam ba mën a sut walla gën a foor déggin bi nga xam ne moom la islam am ci doomu aadama amut gars yi seen euh, affaire yi nasal aar doomu aadama ak nangam ak naan yëpp bu ñëwee ci alquran dafay mel ni rek nga tànk ci benn kaas ci ndox alquran wax na ci bu yàgg alquran bàyyiwu dara alquran rek moo wax ne wa laqad karamna bani aadama wa hamalnaahum fi lbarri walbahri wa razaqnaahum min altayibaati wa faddalnaahum ala kathirin mimman xalaqna tafdila cër bi islam rek moo ko jox doomu aadama ah kon ya allahu ya rabbi ah, ñu ngi ñaan ci barke weer yi ñu nekk muy shaaru rajab comme ni ñu ko waxee woon ñaam ci ay ngëneel yu bëree bëri yàlla nangu ci ñaan yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla may ñu ci julli yàlla may ñu ci isra wal yàlla may ñu ci teraanga bu mag muy saahibul fayda Mawlana Cheikh Ibrahima Niass yàlla def ko mu judd ci weer wi yàlla may ko ngëneel te nangu nañ ko yàlla may ko ngëneel te nangu nañ ko gis nga sëriñ bi wax na ne su ñëpp toogoon man danaa wër pour uti jàmm na ma sama dàll sama dàll rek laay jox fépp fu jàmm nekk rek wala fu ma dégg problème danaa ko fay moo dem Nigéria fekk ñaari xeet Hausa ak Yoruba duñ wax moo tax benn bindikat bu foor ne ko Union africaine bi gars yi di kii yow dëggal nga ko dëggal nga ko yow parce que xeet yooyu nga xam ne duñ mayee jabar soo nekkee Yoruba Hausa du la may boo nekkee Hausa Yoruba du la may bàyyi ñëw def leen ñu nekk benn ba ñuy takkante di ànd bokk benn sëriñ Soudan taarix bind na ko mu fekk gars yi ci ger mu fay ko Jamal Abdou Nasir ca Égypte nekk ci ay problème amul kenn ku muy laaj muy bàyyi ñu ne ko xanaa da ngaa dof benn africain jógee fii Sénégal kii lu mu xam ci mbir yi mu ne moom a génne ci problème bi de Abdou Diouf wax na ne am naa problème laaj tontu tontuwuñ ma waaye mu ne am na ku ma wax ne ma Mauritanie ak Sénégal benn lañ mu ne ay booba suma mu ne sama xel mi ma am maa ngi ko jëlee fan moo tax nañ bàyyi xel ci may yi nga xam ne yàlla may na ko nit ñu baax ñi ñu koy jëfandikoo yaa allahu yaa rabbi ñu ngi lay ñaan ci barke rajab ci barke Mawlana Cheikh Ibrahima Niass mi nga xam ne moo juddu ci rajab ak may yi ko may ak baawan bi nga xam ne baawaan na ci moom fayda yàlla allahu yaa bi ñu ngi lay ñaan ne Sénégal mi ngi rëngi-rëngi waaye yàlla nga ko delloo ci place am yaa allahu yaa ñu ngi lay ñaan képp koo xam ne sa deret fitna moo ci ne yàlla boo ñu jiite mukk yaa allahu yaa rabbi ñu ngi lay ñaan képp koo xam ne dañoo pare jax-jaxal dañoo bëgg a perturber suñu réew ya Allahu ya rabbi bul ko def mu méngoo dara suñu mbir ya Allahu ya rabbi ñu ngi lay ñaan jàmm di nga xam ne yow yaa ko sàkku ci ñun yow yaa ñu digal ne nañ def jàmm nañ wax jàmm te yow yaa amee jàmm kon yàlla ñu may jàmm ya Allahu ya rabbi ñu ngi ñaan képp koo xam ne génn nañ ngir ñur ngir défendre ñu ah bañ jàpp ko yàlla ya Allahu ya rabbi yow mën nga leen di libéré yàlla nga libéré ñooñu ya laaw ya rabbi ñu ngi ñaan ne mbooloo jullit mi yëpp am na loo xam ne naqari nañu te taxawuñ ci buntu kenn di ko ñaan sàkkuñ ko ci kenn ci yow lañ koy sàkku ya allahu bi lépp lu ñuy réer yàlla nañ ko gis ya allahu ya rabbi yàlla nga yàlla nga libéré ay bakkan yoo xam ne dañ doon défendre bakkan ba gisatuñ leen ya allahu ya rabbi wa qarri aynan yàlla ñu ne wan ci nu mu gën a gaawee ya allahu bi ñu ngi lay ñaan nga dooli sécurité ci Sénégal ya allahu bi ñu ngi lay ñaan ñu ngi tiital naan ñu dund bi dana cher waaye bu la neexee yow du cher ah parce que yàlla mu ne dara yombut li may lu ma yombal yaa Allaahu yaa rabbi yàlla buñ dégg information yàlla buñ jaaxle yàlla buñ sonn yàlla buñ xiif yàlla buñ beekoor yàlla bu yàlla wàcce mbas ci Sénégal ak ci Afrique yëpp yaa Allaahu yaa rabbi euh, sa jaam yaa ngi nii yaa wax ne ñaan leen ma ma nangu leen ñu ngi tàllal suñ loxo di la ñaan ci lépp lu sell loo xam ne mas nga koo bind ñu ngi te dékk suñ loxo ci barke yu sell yooyu yaa Allaahu yaa rabbi xam bi nga xam soxla yi doy na wëri suñu lay ñaan yaa allahu yaa rabbi yàlla nga dalal suñu xel yàlla nga dalal suñu xel ci suñu réew yàlla nga dalal suñu xel ci Afrique yàlla nga dalal suñu xel ci àdduna bi yàlla nga dalal suñu xel fépp foo xam ne doomu aadama mi ngi fa yaa allahu yaa rabbi ñu ngi lay ñaan bardan wa salaaman ala sénégal bardan wa salaaman ala afriqiya bardan wa salaaman ala alaalam wax nañu ajumóori nangu ñu yàlla sut fi imam bi di toogee udu allaha wa antum muqinuuna bil ijaaba الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى وابتغاء الوسيلة وحضنا على طلب درجة رفيعة له الفضيلة أمرنا أمرا بدأ فيه بنفسي واستنى بملائكة قدسي وسلس بالمؤمنين من جني وإنسي وقال تشريفا للنبي وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم احفظ بلدنا السنغال اللهم احفظ بلدنا السنغال اللهم احفظ بلدنا السنغال وانصر حكومتها ورئيسها وشعبها وأكمل لنا المشاريع بأيدينا يا رب العالمين وأكمل لنا المشاريع بأيدينا يا رب العالمين وأكمل لنا المشاريع بأيدينا يا رب العالمين اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من بلاء كورونا واكشف عنا من بلاء كورونا واكشف عنا من بلاء كورونا واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ليس لها من دون الله كاسبة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك رحمة وأهلنا من أمرنا رشدا وأهلنا من أمرنا رشدا وأهلنا من أمرنا رشدا يا ربنا يا قلق العوالم حل بيننا وبين كل ظالم يا ربنا أنت ترى ما قد جرى فاقسم بالقهر من علينا جسرا فاقسم بالقهر من علينا جسرا